ay micro waye depuis mu donn way jurum ba Cheikh Sidi Mouhamadou Lamine nias ba léegi gisoo len ko mu am ben micro bu yor di am lu muy wax li liggey lepp daf koy liggey ci souf waye tay ji mi ngi ni taxaw ci ginaaw mbolo mi lol nak lan lay wone moy li du problème politique waye problème la bo xamné problème humanité la damay xalat Serigne Sidi Abdoulahat Mbacké mi nga xamné ma nga ca Touba. nga xam ne man bi ñuy xale ba nëga ni liñ dégg mooy du seetaan benn télé bu dul wal fajiri kooku boo coupé ab signalam mu toog une semaine gisul wal fajiri yaa ngi koy tooñ wala tooñoo ko te jàpp naa ne nooñu ñu tooñe nag sëñ Sidi Abdoulahat noonu la tooñe mboolem peuple Sénégal parce que peuple Sénégal wal fajiri mooy seen télé Babacar Diagne nag jàpp naa ne fi mu nekk dafa war a jóge li tax mu war faa jóge mooy dañuy xool Babacar Diagne ba mu juddoo ba léegi am na 72 ans mësta employé doomu aadama di ko fay Babacar Diagne nit mësta fayee ko xanaa ab safóoram wala bonam waaye mësta employé benn doomu aadama di ko fay Seydi Mouhamadou Lamine Niass mii mu jël ay daan ko ci kawam tey lu ëpp ñeenti téeméeri borom kër moo leen wutal am xëy ñuy xëy kon nag jàpp naa ne. ne moom dafa lott ci mënul wutal xëy kenn kooku waruñu koo bàyyi muy jël ay daan di ko teg ci kaw jàmbaar ju mel ne wal fajri bi ci des mooy RTS Pape Amadou Sy yaakaar naa moo yor ARTPM xaw ma nekkoon na journaliste ci RTS toog di représenté journal surnal laa wax nag journal ba yàgg mu daan ne élément bii di jàll man mii di def journal maa doon def meeting doon jàppale président Macky Sall na ngeen ko seetaan nga xam ne moom mii def journal mooy présenté ab meeting bu muy def kooku politicien la wala du politicien Racine Talla bi nga xam ne moom élection législative ak moo te daat ne affaire cohabitation bi ngeen di wax na ngeen ko bàyyi bu leen ko waxati daat ne na ñu déglu. léegi ñi ngi def conférence de presse ñoo gañe loolu ngeen di jàllale te lam waxoon ca télé ba moo am kon RTS télé bu mag bi fi nekk mooy njëkk première télé bi dàqa fen askanu Sénégal jamais jaay doole gi nekk ci réew mi ceeb bi lépp lu nekk senegal kii seetaan RTS du ci yëg dara kon nag li Babacar indi woon li Babacar Babacar Diagne li mu bëgg moom Macky Sall mën nañ koo am fépp la bi la wala fajri appel luñ am liñ bëgg dinañ ko am ci fépp am ci ñëpp ndes wal fajiri ak seetaan kata wal fajri yi mooy ñu bëgg a ne réew mi amul si amul justice réew mi dañoo xiif Macky Sall lam ñu waxoon defu ko télé yi nag fii laa koy jeexale li tax wal fajri ñu coupé signalam une semaine télé yëpp lek-lek dañuy laal ci nguur gi léeg wa ñu wacc nguur gi léeg-léeg dañuy won askan wi lu leen yee way léeg-léeg dañuy lëndëmal télé yi ngay taal do ci fekk mbëri yi kottante ak yi yu ses bari wul télé yu bari da ngay gis sax ñu naan émission bi dañ koy wan nu ñuy xooja ay jaljaleeg nu ñuy xooja ay ferak ay cóoraay ënn la yooyu la ñuy wane wal fajiri bàyyi woofu alalu yàlla la kenn mënu koo xeex wasalaam jërëjëf jërëjëf sëriñ Bara Ndiaye def def gis ñu tàcc waat ko kon sëriñ Bara Ndiaye di wéyal rek moo di programme ñu dalal suñu naataango defkat xibaar di fay membre de la coordination des associations président des presse bu fekkente ne mi ngi ci mbooloo mi ñu mu yëkkati ci ay kàddu ne moo di li daal wol Walfadjri ak jafe-jafe te ñu fàttali bi Walfadjri doxul ci canal ak ci TNT te loolu yéen ñëpp moo leen fi indi mooy ñaawlu ko naqarlu ko ba fu naqarlu yam ndax du yoon ci ab dëkk ab télévision di toog pendant sept jours du émettre fii ci Sénégal. salaamaaleykum ñu jaajëfal itam les députés nga xam ne ñoom. ñoo lay fay nga bàyyi sa yite yëpp ñëw ci sitting bi nga xamante ni Walfadjri dañu daggoon signal bi ça fait presque une waaw maanaam ñu lu comme ni ko mbooloo mépp yi naqarloo ndax lii dafa euh, nekk loo xam ne jaay doole la te jaay doole moom baaxul ah mu euh, nekk loo xam ne nag dañ cee amoon yaakaar suñu yaakaar tas lool ah mu nekk loo xam ne si Sidi gaynde ga lam doon xeex moom lañ koy xeexle ba léegi mu doon loo xam ne lu ko mos a naqari naqari kiim fi bàyyi itam yal na yàlla dolli leeram waaye nag lu ko naqari moom ni ñu ne moom la ñuy xeexle ba fu fu géej gi yam rek moom loolu la ñuy euh, ñu naqari jërëjëf. dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax par rapport ak euh, li nga xam ne mooy signalu Walf bi ñu tàgg ñoom nag def nañu euh, sitting boo xamante ne ni tey dafay permettre ñu mën a ñu mën a euh, euh, récupérer seen signal bi dañu jàpp ni peut-être dañu bafoué seen ay liberté sëñ bi ñu. a reproché maa lay fay bu baax ba baax. yaa ngi ñëw fii ci li nga xam ne mooy si sitting Walf bi pour apporter leen seen soutien. waaw euh, donc dama ñëw tout simplement pour soutenir sama confrère parce que journaliste la. ah ok ban organe. maa ngi si sama site Bounkiling Matin info donc man maa koy diriger donc loolu moo tax depuis ma eh. dégg lii rek euh, maa yoon bi depuis euh, Ziguinchor ma ne a ma ñëw assister pour jàppale sama confrère yi. est-ce que jàpp nga ni tey li Babacar Diagne def euh, teg na ko ci. non man li yaakaar naa ni liberté d'expression moo nekk moo bafoué donc yaakaar naa ni képp ku xamante ni taskat xibaar nga war nga ñëw jóg ñëw assister jàppale waa Walf TV bi

sama xalaat bu gàtt rek laay wax Walf moom forever forever pour toujours Walf moom kenn mënul déranger Walf waaw ginnaaw yàlla moom lii ba ko Sidi di sàcc ah ba ko Sidi di sàcc tàgguwul kenn nguur mënul déranger moom dañuy dañuy jéem a dañuy jéem a dañuy jéem a intimité Walf rek mais ay ñoom Babacar Diagne ñëpp. ñoom ñëppay dem mais Walf il sera toujours là incha allah dinañ jaajëfal. jaajëf ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante moom la wax. Euh, yéen a ko déggandoo ba tey yéen a ngi suivre li nga xamante ni mooy en direct Dakar instant euh, fi nga xamante ni mooy buntu Walfadjri gis ngeen ko euh, sitting bi nga xamante ni gars yi woote nañ ko gars yi dagg seen yitte yëpp daal di ñëw participer indi seen apport sëñ bi ñu ngi lay fay mën nañ xam tey lan moo waral sa teewaay ci sitting bi yaa ngi en direct Dakar instant waaw teewaay bi mooy comme li ñu li ma waxoon keroog si seen chaîne rek injustice bi nekk bi rek dëkk bi moom justice moom amatu fi moom injustice lii nii tëj ay télé si en 2023 ngay tëj ay télé dépassé nañ ay canal TNT affaire yooyu tëj nañ ko une semaine ñu ngi koy seedaan si internet bi donc gars yi ñi nekk ci kaw ça veut dire ñoom askan bi da leen raw àdduna da raw ay tëj ay télé amul njëriñ ñu ngi nii tëj nañ ko mais ñu ngi seetaan programme Walf Walf yëpp injustice moom amatul si dëkk bi nak te injustice mom dekk bu mu amul dekk bu am amul justice fi mu muju ñep xam nañ ko ñu ñaan yalla nak mu def jàmm indiwaat seen xel ñom ñi nekk ci kaw ba jamm am quoi mais ni ñuy doxale ni bu ko konné fi ñu jëm ñep xam nañ ko quoi merci beaucoup ma rappeler len rek ni yéen ngi suivre en direct Dakar instant na ngeen def. ñu fi yéen a ngi si jàmm ça va alhamdoulillah ya ngi en direct Dakar instant. lan mo tax nga ñew ci sitting bi. dama ñew rek pour soutenir wa wal Walfadjri waaw da nga jàpp ni liñ leen def euh, teguñu ko. c'est pas normal du liñ def c'est pas normal parce que mënoo tëj télé bëgg tëj télé une semaine am na ay ñi nga xamante ne ñu fi liggéeyee te liñ def tamit nekkul loo xamante ne jar na tëj télé c'est pas normal du tout loolu moo tax ma ñëw. merci beaucoup dégg ngeen ko li mu wax nee na c'est pas normal ñu daal di dagg signalu Walf bi niki noonu rek la ñuy continuer di leen jëlal quelques réactions ci li nga xamante ni mooy sitting bi waa Walf organisé fële ci seen buntu locaux yi sëñ bi ñu ngi lay dañ xam lu waral sa teewaay yaa ngi en direct Dakar instant waaw dañu ñëw fii pour apporter suñu soutien ki nga xamante ni mooy groupe Walfadjri parce que gis nañ ni liñ ko teg jaaduwul quoi moo tax ñu ñëw pour ko suñu merci beaucoup dégg ngeen ko li nga xamante ni moom la wax dañoo ñëw juste pour apporter seen soutien ak ki nga xamante ni mooy groupe Futurs Médias <laughs> d'accord amul problème voilà gis ngeen ko noonu sitting baa ngi wéyal di am gis nañ fi nag quelques autorités politiques yoo xamante ni ñëw nañ fi pour soutenir gars yi salaamaaleykum. waaw na nga yaa ngi fi. yaa ngi en direct Dakar instant. ñu ngi lay ziar. nañ xam sa teewaay tey fi tey dañoo ñëwoon ngir euh, jàppale Walfadjri si dagg bi nga xam ne dagg nañ ko bi nga xam ne ab Babacar Diagne moo ko def ñu jàpp ni du Babacar Diagne Macky Sall moo ko def ndax euh, dama naan ñàkk gore bi ñàkk Macky Sall ñàkk gore moo waral tey teg tëj Walfadjri tolloog 7 jours ndax 2008 bi que Ablaye Wade dàqi fii la ñu fekk te ñu ngi koy ko bu baax a baax euh, Mamadou Matar Sarr mi ngi woon Kaolack doon jaabante Fatick ak Kaolack ngir jël ay reportage am di ko envoyé Walfadjri. 2009 bi ñu daa bi nga xam ne am na ñi nga xam songu nañu Walfadjri ñu ngi fàttaliku kàddu yi nga xam ne si Lamine Niass yëg Macky Sall yëkkati woon na ko si Walfadjri waxoon ne ne dañ war a jàppale Walfadjri dooleel presse bi tey bu ñu gisee ni tey jii si nguuram moom jàpp nañ ab journaliste si lan dafa wax li nga xam ne mooy liggéeyam gis nañu mu teg télé lu tolloog 7 jours dañ naan loolu jaay doole la bu ñu gisee li Babacar Diagne def te man su ma tudd Babacar Diagne toujours dama naan Macky Sall moo liggéey lii ndax li mu def dafa ñaaw trop te Sidi Al Amin Niass ñi nga xam ne dafa taxawal wal fajri depuis 1984 ba tey euh, du lii lañ ko doon fayee depuis Senghor ba tey mën nañ ne élection 2000 fekkee wuñ ko mais ba élection yi jubee te gaar yoon mën nañ ne wal fajri la ak Sud FM ndax ñoo doon joxe résultat yi par téléphone 2007 noonu la fi taxawee 2012 bi Macky Sall faloo tey ñu ngi fàttaliku discours bi nga xam ne sii Lamine Niass defoon na ko guddi googu tey 2010 23 ñu ne Macky Sall tëj na Walfadjri daf lii naqari daf lii métti moo tax bu Walfadjri ootee dootuñu xool jëriñu Walfadjri mais dañ naan li Sidi Lamine Niass liggéeyal askanu Sénégal li nga xam ne Sidi Lamine Niass bàyyi na ko muy patrimoine bi nga xam ne Cheikh Niass téye na ko te du li nga xam ne Cheikh Niass moo ko téye mais ñun sénégalais ñoo ko moom ndax Walfadjri moo meelu askan wi la moo meelu Sénégal la loolu moo tax tey ñëw di sukkiin soutenir Walfadjri di wax ni Babacar Diagne li def ñaaw na la ligne auditoriale am mooy la voix des sans voix mooy kaddu ñi amul baat kaddu ñi amul baat dañuy foog ni population bi nga xam ne ñi nit ñi la kese même politiciens yi bu amul baat tey ku mel ni Ousmane Sonko amul fu mu waxee bu ñëwal Fakiri dañ koy jël moo doon Macky Sall 2008 ba 2011 tey nag bu defee lim def nii ñun dañ daan rek ñàkk goree di la ak ñàkk xam lan mooy rôle presse ci ab réew mais buñ nee ab manifestation bi nga xam dañuy télé mais dañoo fàtte diggante 2011 le 23 mars ba jëm 2012. dañ doon fàttaliku 18 heures 17 heures dañ doon toog télé bi seen ay manifestation fépp si Sénégal kon tey bu dee loolu lañ def Mbàkke benn jour dama nekkoon Walfadjri bu yeboo ñun ñu dem abonné gi YouTube ndax lii ñëw si kanam ñu koy gis li xew Sénégal li gis démb ñu def ko Ousmane Sonko te bu doon démb Walfadjri da koy teg kon mën nañ ne li jëm suñu kanam ak troisième candidature Macky Sall bi nga xam ne ñu ngi koy coow kon télé yëpp nañ Euh, voilà sëñ bi ñu waaw maa leen di sa teewaay tey. ben teewaay bi c'est pour représenter la démocratie je suis pas là pour quelqu'un wala quelqu'un parce que Cyril Lamine euh, c'était un pilier il a beaucoup œuvré pour la démocratie ba tey déjà boo xoolee injustice fu mu amee xel yi day demaat wala ci Mame Abdou quoi donc on est là aujourd'hui pour défendre la démocratie en primo en secondo tamit on est là. pour euh, un futur boo xam ne booy loolu ñoo koy ficelé quoi cette jeunesse toute là c'est pas ñu tax fi yëpp dañu ñëw rien que pour xeex suñu kii suñu moomeel quoi parce que c'est ignoble c'est inadmissible ngay couper signalu jàmbur quoi et puis mooy loolu duñ ko couper am na beneen tele bu ko doon defa ah, kii en même temps mais jotuñ sommation jotuñ dara c'est-à-dire c'est pour montrer que euh, boo tegoo ci yoon juste boo tegoo ci yoon rek dan naan opposant quoi nga xam le Sénégal dem na ba moelle épinière bi ça ko un problème donc là on est là juste pour la démocratie et défendre la démocratie merci.